ko indee posé ko ci table bi wala li ñu yëfi sénégalais yi ñuy jël dénk ko ñenn ci ñoom soo ci waxee sa xalaat ñoom au ñu indi seen xalaat ci loolu mais ci yow ci jëmm yi la ñuy daal di jëmale waxtaan bi te jëmm yi pour man muy man muy le premier ministre Ousmane Sonko muy le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy Macky Sall mi fi jógee Ablaye Wade ak Abdou Diouf ñun ñëpp suñu jëmm yi dara par rapport ak Sénégal ndax Sénégal rek moo war a nekk waxtaan bi moo war a nekk sujet bi ak nu ñuy def ba jëmale ko kanam. d'accord leneen li tam mooy sa problème coow léegi nit daf gis nañ ne polémique yi bari na dañ doon xeex ci plateau bi dañ doon dugalante ku àtte bi yow mi nga xam ne yaa ko rek ne manipulation seen mbir la yàlla xam na ne xeex amu fa ay kàddu nag na fa joxante nañ ay kàddu wax na ma wax naa ko et après ñun ñi ñëw nañ tàqale ñu ndax xam nga ñu ñun ñëpp xam nañ site surtout site bu mel ni Sénégal set ni muy bëree nit su gi heure bi nga xam ne journaliste technicien ñëpp a ko foofu noonu kenn mënu fa seetaan kenn ñuy dóorante donc mooy li ma wax su ma bëggee dóor xam na nu muy def xam na sama numéro xam naa ko mais fekk ma Sénégal set ne da nga may dóor bëggoo ma wala dóor da ngaa bëggoon nit ñi coow moo leen neex mooy ñuy ma jàpp ne fond culture urbaine moom la bëgg bi ñu dénk Moustapha Dieng na xooli neneen nu mu ko utee rek jaru xeex jaru xulo mais en tout cas man du ma may kenn turbine pour ngay jaar ci man euh, pour ñu lay pal wala ñu lay ñu lay jox ndombal tànk wala euh, ñi nga xam ne ñooy say naw la ñu wekk la d' accord ñu gis tam benn oustaz boo xam ne bokk bokk fecc si bu ko tam moo génn par rapport ak li ñu ngi doon xaar comme yéen a bokk dëkk mu jël contraire bi jàpp ne ñu bëri jàpp ne da ko jàngatee aussi xam nga euh, wax dëgg yàlla fii ñu àgg nii tey bugguma fi woon a àgg ak moom mais nag il faut ñu àgg fa ma xamal la rek Fadel euh, nee na benn booy bu mel ni man amul Sébikotane bu fekkee man ma bu fekkee ne Sébikotane euh, am na benn nit boo xamante ni moo ma fa gën a yées jàpp naa ne moom la maanaam bu doonoon course la jëluma ndaare ndax wóor na ma ne moom maa ko daw te bu leen neexee ngeen jël seen micro ngeen ñëw Sébikotane ñu commencé biir koñam guy gi fa mu dëkk nga commencé di di ma laajte di ko laajte oustaz la du ngénte néew sang néew sax mosu ñoo gis mu def ko fa mosu faa jiite kenn gisuma ku mu fa jàngal donc kooku lan la ma mën a xasee ci dëkk boobu xam nga nekk oustaz ñi yàlla man ta weesu man bàyyi ndóoy yaay mbeg nga ne yaa ma gën a doon lépp tey séeréer xam nga ñi yàlla ak ñi me kar fa lay doore ci oustaz beneen bi mooy oustaz bu baax jàngalu la waaye kooku fu may jàngale yow ah, ma jàpp ne moom xanaa xam-xam sax nanguwul loolu di jóge foofu di xelleeku fii xam-xam sax day bañ ci bi lay tax quand même koo xamante maanaam veillu Tabaski nit ñi ak jamaatu rahma la ñu wax ab dëkk boo xam ne ñëpp maase nañ buñ ma bootul it nangu nañoo ànd ak man yow kot nga ne ab nitu diine nga waroo ak loolu ça veut dire que yow war ngaa xoolaat sa bopp loolooy benn beneen bi mooy man dama ne bu fekkee ne li muy wax parce que wax na ko répété ko ne amul kenn ku mel noonu beneen bi bu doonee man dong la laa wax moom maa ko raw maa jël avant ndaare mu jël ndaare ndax man jàpp naa ne maa ko dama ne koo xam ne oustaz du jàkk buñ la jox du tudd buñ lay woo du néew bu gaañu buñ ne la kaay sang ko gisaguma ko ñu mu dëkkal gisuñu ko ban daara wër ci rajo yi di wax bu utee place buy ut place na dem feneen du ci man te lii bëgguma ko wër ndax bu njëkk ba bañ ma ci laajee yaakaar naa Ousseyn mi dama ne Sébikotane doomu Sébikotane man du ma yàqanteeg moom te lii ma waxoon ci loolu foofu laa taxawe woon jusqu'à ce que li ko jaral pour mu yàq ma ma lu ko raw pour ma dépendre sama bopp et man du ma xale boo xamante ni dañ koy sacrifier chaque jour ma wax leen ko gëmuñu ko man ñàkk ma fayda doyatulu ma sama bopp la ma def ko Sébikotane mu nga fa na jéem a def lu ñu toll wala lu ñu xaw a mel noonu te xam ne àdduna bii ñu nekk ku nekk jariñ sa dëkk la ñuy sàllo waaye du cogg ak dunguru di yàq sa doomu dëkk bu bëggee ab poste na dem uti ko neneen mais du ci man te ku ko jox poste def nga erreur ndax tekki dara ca dëkk ba ku ma wedd def leen reportage bu ngeen ñëw pourtant dégg naa ñu ne <laughs> coxo ga mu dëkk laa kenn du ko fa fal chef de mais am Ameth moo tax lii en parce que coow li jeexoon wax nga ko si ba ngeen déggante woon téléphone bañ arrangé ko pourquoi euh, démb xam nga barki démb génnaat lan la lan la ndax dafa dafa am lu personnel seen diggante yéen ñaar wala non non bëgg mooy li ma lay ak bëgg tur di ko jaarale ci man nee fan yi peut être ñoom jàpp nañ ne man lii may def leneen moo tax ma koy def te li may def sama ngëm-ngëm la benn wax naa ko ba taay sama ne man Sénégal waxtaanewuñu ci loolu ngay waxtaan ci sama jëmm naan nii laa sébeeg nii du ma nii sébi moom moom laa wax li muy wax du dëgg te bu ngeen ñëwee Sébikotane ngeen def ko reportage di ngeen ci xam dara man sama maam maam Ndëkke Diop moo dalal mu xaddam ba fa gën a mag di Alaaji Maalik euh, di euh, mu xaddamu Alaaji Maalik di maam Taala Lo ba ko maam Ndëkke Diop dalalee ba pare sama baay moo dagg suuf jox ko daara jam maam alaaji Taala Lo doon jàngale siddeem jooju boo ñëwee suñu kër ma wan la ko sama siddeemu maam la kon la daan toog moom mi naan maamam moo dalal ñooñ na ma ko wax man sama maam dafa dagg almeer tabax jàkk ca dëkk ba na ma wax maamam ñan la dalaloon sama maam boo ban message ngay jox ci jeunesse bi tey mi nga xam ne peut-être amuñu yenn information Euh, waaw euh, nañu gën a nañu gën a vigilant ñu moytu manipulation te xam ne am na question yoo xam ne buñ ci tolloo ci réew mi dafa dépendre ay parti politique dépendre ay jëmm dépendre ay génération mais ay question la yoo xamante ne nii avenir u Sénégal daf ci dépendre nañu gën am taxawaay ak vigilance bañ bàyyi nag comme li waykat bi waxoon lépp lu ñu dégg rek jàpp ne mooy la jëf ni dof dañu benn jour nga ne da ñoom bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu constitué ba pare ñëw nañ gis ma rédiger plainte bi pour ma signer ko moo ci desoon mais ma ne leen jëmm joo xamante ne woyam saa yu ñu ko déggee euh, Ousmane Sonko mooy biti du ci Facebook du ci TikTok du ci rajo du ci télé ku gisati woyam donc comme moom ci loolu rek lay jafandu pour exister day dunguru pour xew man du ma ko ko may pour ñu dem tribunal ñoom Fadel ñoo fa naan fu mu tolloog fu mu ah, mujj muy fa daje wala deal daje fa parce que ko ni ngeen conseillé foofu ci Sénégal seet non non bu ma doon réglé ak monsieur ak madame Ndiaye ñëw fa moom mu am fa émission donc man bi ma paree bay waaj a ñibbi ci la yegg si waaw ci la fa ci la ma laajee ko doon wax ragal ma ne ko man maa ne yow ragal ko après coow li commencé mu yëkki ay kàddu yu ñaaw mu yëkki yu ñaaw. après ñu tàq la jox wax a wax la déedéet ku <laughs> yaakaar naa war nañoo sant yàlla ci am une opposition très républicaine boo xamante ni dañu ne. Euh, trois trois trois trois mois yi quatre-vingt-dix jours yi wala sax cent jours yi nga xamante ni le sept juillet lay mat ñoom dañooy dañuy négandiku déglu le pays attend une direction Sénégal les Sénégalais attendent ñëpp a ngi xaar euh, am na ci ay ay effet d'annonce yu am waaye les Sénégalais attendent une véritable direction parce que nguur addiya nguur Sénégal mosuñoo sonn pour nit ñëw ci pouvoir comme niñ sonne ci régime président Bassirou Diomaye Faye fay au pouvoir loolu nag bu la ko nit ñi ki ki def ki bàyyi lépp ngir yow war ngaa dese tuuti pour sagal ko donc les sénégalais sont extrêmement fatigués man tey jii la su fekkee ne am naa euh, euh, loo xamante ni dinaa leen ko wax mooy nañu bàyyi xel askan bi nañu euh, bàyyi xel li nga xamante ni moom mooy dundinu askan bi xam ne li woon woon ni wut li fi président Macky Sall bàyyi looloo fi nekk ba tey muy jafe-jafe yoo xamante ni sénégalais yi ñoo ngi ci keroog bi ñu yokkee transport bi réew mi tuuti mu toj waaye leneen li nga xamante ni moom moo gën a yéeme mooy euh, xar yi gis nga tey ni mu nekkee woon problème donc dig nañu ñu souveraineté alimentaire dig nañu ñu souveraineté énergétique dig nañ ñu li nga xamante ni moom mooy une éducation adaptée à nos valeurs dig nañ li nga xamante ni moom mooy la qualité boo xamante ni dina am ci suñu éducation dig nañ ñu euh, ci wàllu paj mi ba nga xamante ni benn jigéen dootul amati doom di faatu wala soit benn xale ay mal formation yoo xamante ni kenn réew yëpp romb nañ ko donc yooyu loolu ñu ñu dikk loolu la ñuy toog di xaar donc loolu la opposition bi toog di xaar donc euh, et c'est une opposition très responsable euh, qui mérite euh, quand même le respect des Sénégalais. Ah, am na jaaji njaay yokk leen wér leen yal na ngeen ñëw déwén yal